réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam
alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain alhamdulillah noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi wàcce alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina mu di ne seen diine wàcce naa ko mu nekk diine ju mat ma gërëm loo lislaam ci nii mu mel ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba kero àdduna di fi jóg noo ngi koy sant sun boroom tabaraka wa taala ci ay xéewalam ak tawfiqam ak rafetalam jëme ci bindeef yi di julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ne moom la sunu boroom wàcce ci moom wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin yónniwuma la lu dul nga nekk yërmaande ci bindeef yi waxul na yërmaande ci jullit yi waaye yërmaande ci bindeef yi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa sallama tasliman kathira mbokk jullit yi diine lislaam diine ju mat la mat na ci aw tëraliinam ba làmboona lépp loo xam ne doomu aadama daf koo aajowoo ci ak dundam diine lislaam ngëm yàlla la waaye jëf la itam diine lislaam pas-pas la waaye ay santaane la jaamu yàlla la waaye jëflente la ci diggante bindeef yi diine lislaam ay xalaat yu xel mën a nangu la waaye itam ay yëg-yëg yu xol mën a yëg la diine lislaam tabax ay jikko la ci doomu aadama waaye tabax àdduna la itam bam tegu fa mu war a tegu bokk na ci gis-gis yu gàtt lool te suufe ku yaakaar ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla da koo yónni ngir mu nekk njiital jullit yi ci julli ak woor ak joxe asaka ak aji màkka bu dara desul lu dul nooy organiser sa dund muy sab koom-koom wala saw tëraliin ci la ngay dund bu dara desul loolu nga dem jëggaani ko ca communiste ba wala nga jëga jëggaani ko ci koo xam ne ku gëmul tegu ci yoon waaye mu bañ a fàtte ne dañ fay jaar rek ànd jëm àllaaxira bëgg itam foofu baax matale googi lislaam matale yemul rekk ci mbir yi feeñ waaye dafa dugg ba ci biir nit ki ba ci biir xolam di wax ak moom def ci biiram loo xam ne su ko gëmee moo koy contrôler ba du dugg ci njaaxum moo xam nit ñi yëg nañ ko wala yëguñu ko ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne innama al amalu bin niyaat jëf ji ngir mu takku day dellu ci yéene ja la muy def yàllaay tax la muy bàyyi itam yàllaay tax loolu nag moo wuutale tërëliinu lislaam ci ni muy yare doomu aadama ak ni mu koy defare ak tërëliin woo xam ne mbindeef moo ko tër lislaam dafa soob sunu borom tabaraka wa taala diine yi ko jiitu woon yépp moo leen mujj gën leen a mat ba noppi folli leen loola moo tax faw daa war a doon diine joo xam ne dafay wuyu lépp loo xam ne doomu aadama da ko aajowoo ci dundam da ko cee war a fekk su ko ci fekkul rek day mel ne li sunu borom tabaraka wa taala waxoon ne diine ji mat na day mel ne su boobaa matut li waral loola moo di yonent yi jiitu woon yépp ku ñëw ku ci nekk sunu borom tabaraka wa taala daf laa yónni ci ab gox yónni la it ci aw nit ñoo xam ne ca ñooña rek nga jëm kii nag di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni wuñ ko ci ab gox yónni wuñ ko ci aw nit waaye dañ ko yónni ci ñépp ak fépp loolu moo tax alayhi salaatu wasalaam mu wax ci xadiisu buxaari ne kaana na kaana nabiyu yubaasu ila qawmihi xaasa ab yonent dañ ko daan yónni ci aw nitam ay bokkam rek mu ne wa bu'istu ila nnaasi kaafa mu ne man nag dañ maa yónni ci mboolem nit ñi kon ku weex ak ku ñuul ak ku nekk ca penkook ku nekk ci soowook ku juddu ba noppeek ku juddoogut ak ñépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a yónni ci ñoom kon diine ju mel noonu dafa war a mat suñ xoolee xool bu gaaw rek ci yi nga xam ne lislaam làmboo na ko loolu moo lay gën a firndeel ne diine la joo xam ne dafa ñëw ngir wuyu lépp loo xam ne dañ koy yëngatu ci suñ dund gi mën nga ñu tër ca ba noppi ca boo ñëwee ci wàllu pas-pas ak jaamu yàlla yi nuy def mu julli yeeg koor yeeg ya ko nuru loolu lépp dafa organiser li dox diggante nit ki ak boroomam sellal ko ba tax bu mën a doon ku jege boroomam ba tax mu mën a bokk ci ñi sunu boroom fonk ba tax mu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañuy texe ëllëg boo ñëwee ci wàllu jikko lislaam daf ko tëre noo xam ne mooy jox doomu aadama ji personnalité am comme nit mu def ko mu doon nit ku mat nit noona la lislaam tëre lépp lu jëm ci wàllu jikko lu mel ne digle ne nit ki nay doon ku dëggu la muy wax na doon dëgg na doon ku am amaana mooy na doon ku wóor du war kenn na doon ku mën a matal kóllëre lépp lum digee dana ko def di xaraamal fen di xaraamal wor di xaraamal naxe di xaraamal ger di xaraamal seede loo xam ne du dëgg di xaraamal lekk alali nit ñi ci lu dul dëgg muy ak neen yooyu jikko lislaam da ko ràbb ngir nit ki na mel nii ndax mu mat nit ndax lu ci manqué rek nit ka day manqué ci ak ak nite lu toll ne la ca manqué boo xoolee ci wàllu jëflante ak contrat yi nga xam ne jullit yi dañ koy signé da ngay gis ne atte yu bari yépp yoo xam ne doomu aadama làmboo na ko aajo woo na ko daf koy làmboo bokk na ci yoo xam ne dafa aju ci organisme lu jëm ci famille lu aju ci sëy nuñ koy takkee ba ci nuñ koy labate bu demee ba lëj nuñ koy lijjantee lépp a ngi ci alxuraan bu demee ba lëj ba mënee su ko lijjanti buy tas lan mooy attey sëy bu tas ak àq yi tegu ci biir loola biir famille doon nanteeg lu ko nuru loolu lislaam daf ko détaillé ba mu leer nañ mu nekk ci alxuraan ak sunna nga ñëw ci àttey njaay ak jënd ak lépp lu aju ci wàllu commerce ak business ay société ay jëflante loo ci laal lu nekk boo delloo ci biir fiqul islaam yi da nga ko ciy fekk nga dellu ci alxuraan fekk ci ay cosaanam lépp lu aju ci àtte ak werante ak yewenal ay diggante ak teg leen booleeg ay nit teg ci yoon ak joxe àq ya ak taxawal ak maandute dafa fees dellu ci biir lislaam lépp lu aju ci sanction yi nga xam ne ku def dara daa war a tegu ci sa kaw ku njaaloo ku naan sàngara ku xas nit ku jalgati frontière yi sharia yooyu yépp dañ ko ci détail détail bu leer nañ nga ñëw ci relation yi dox diggante réewum lislaam ak yeneen réew yi nga xam ne nekkul réewi lislaam nan la ko organiser nga fekk foofa ci ay relation internationale loo xam ne na ko lislaam tere buñ la ko doon jàngatal tey danga naan lii moom xanaa tey lañ ko tër waaye du woon démb kon diine jooju noonu la feese ci biir tëraliinu lislaam wu matale woowu da ngay yëg yow nit ki dund ci biir foo xam ne lislaam a ko yore da ngay yëg ne yow lépp looy aajowoo ci ay droit wala ci ay liberté yu tegu ci yoon yooyu yëpp da ngay fekk ne lislaam yow garanteel na la ko yow miy dund ci biir lislaam ci lu dul sa liberté di fénkoo ak liberté bi jàmbur wala say droit di féewaloo ak droit keneen moo xam kenn nit nga individu wala dangaa nekk mbooloo bëre bi nga xam ne ci diggante lii ñuy tudde tey lay ak diine xam ngeen ne fam sosoo ña nga xam ne ñoo sos laïcité dañoo gis ne diine jañ doon dëkkal jañ doon dundal wax dëgg yàlla yiñ soxla woon ci seenug dund dañ ko caa gisul woon yañ soxla ci seenug dund lu mel ne atte yi ma tudd diine jañ dëkkaloon gisuñu ko ca nekku ca rax ca dolli ñu wëlbatiku li ñuy tudde riya rijaalu diin muy ña doonoon waa diine ca jamono jooja dañu aakimoo woon mbir ya bàyyi nit ña loolu moo tax révolution nag taxaw ay bañkat jóg fippu xeex diine ak i gaayam fas yéene libre mën a taxawalal seen bopp ay loi yoo xam ne lii ñu aajowoo ci seenu dund te gisuñu ko ci lee ñuy tudde diine ñu tëralal ko seen bopp kenn ku ne xam na ne yëngatu bu mel noonu lu lu naturel la ci kuy dund ci lu mel noonu ndax loi bu ñuy teg dafay balle ci biir askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko nar a dund ñaareel ba dafa war a dikk ngir saafara problème boo xam ne société bi ci boppam dañ koy dund lu waa noonu lay mel jafe-jafe yi bii faral di am nag ci diggante sunu réewi jullit yi ak liñ fay faral di indi ci ay loi léeg-léeg dadul dëppoo ak saafara saafara lu ci bari dafa ñëwul ngir saafara problème yu mag yi nga xam ne moom la askan wi di dund day doon rek léeg-léeg luñ jëggaani gis ne am na réew yu ko appliqué mu am njariñ kon nu ni dañ ko war a appliqué ànd ak ne société bu ne am na ay problème am yoo xam ne suñ demee bay ittihaad bu doon ci lislaam dañuy wax ne ba ñuy jëfandikoo siyaasa shar'iyya di saafara suñ problème yi teew di ko wutal ay loi su boobaa bu ci ñëw bu ne rek mën nga ne lii lay saafara bii lee ko tax a jóg bii lee ko tax a jóg nga xam ne askan wi dañ koy dund suñ leen ko waxee duñ ci am lu ñuy werante duñ ci am sikki sàkka ci ni lii moom daa ñëw ngir saafara lii su ko defee su dut loolu mën ngaa jël ay luwaa yoo xam ne dëgg la day saafara day saafara ay tawat waaye bu fa tawat ya nekkul nag kon da ngaa indi ordonnance boo xam ne feebar bi muy faj nekku fa su boobaa loolu day indi coow lu baree bari kenn ku ne xam na ne sun fan yi nu nekk coow li bareeti na nim daan bare saa bun jubloo lu ñuy tudde wate moo xam façon wate bu mën a doon jot nañ lu bare bare bari ci ay wax ak ay téléphone ak ay mbind ak ay yëf ñuy laaj ne ban taxawaay la sharia am ci lii nu jublu ndax dan naan waaw wala dan naan déet waaye nan ko daan defee ci manhaj bañ jaaroon ba tey ca la nekk moo di mépp mbir moo xam ne mu laal sunu askan la laal sunu réew dun ca am taxawaay di seetaan waaye dun ca buñ koy xool dañ koy xoole ci anam gu gën a kawe anamu xëccoo ak mbiccoog mbàlloo bi nga xam ne moom lañ gis ci xulo beeg xasante beeg dugg ak génn ak duufal lu duufut ak réyal lu tuuti wala nga tuutal lu rëy yooyu du wàllu kuy jubbanti dañuy xoole ci anam goo xam ne intérêt bi gën a kawe boo xam ne xeet wi moo leen di jariñ war a mën a indi ci sunum réew ak dal war faa mën a indi sécurité ak ak jàmm ci bunt bu toll noonu foofu la ñuy waxee su ko defee nag bu loola jàllee kenn ku ne ak sa responsabilité nag nga jéem a def sa kem kàttan la nga jàpp ne lii moo ëpp njariñ ci saw askan ak sa diine bu dee waaw nga ne waaw bu dee déet nga ne déet foofa lañu nekk ànd ak loolu du tee nag am ay orientation ak i laaye biir yoo xam ne dañ koy def suñ bopp di ko def suñ bokki jullit yi ba ci jëkk moo di dénk suñ bopp di dénk mboolem dal nga xam ne lii lu ñëw rekk di jàll la juuyoo ci xalaat wërta àgg ci tuumaal nit ay tuuma yoo xam ne jéggi na dayo wërta àgg ci saagaante wërta àgg ci xasante wërta àgg ci tëkkoonte nit ñi nañ dal nan yëg ne nun ñii fi jaar ñépp di dund tey dañ fee ñëw fekkoon fi ay nit ñu fi jiitu woon tabaxoon am réew ba am fam toll nu war a ñëw nun am participation buñ fi def boo xam ne histoire dana nu ko bindal nu war fee jóge wuy ji suñ boroom loolu yi nu teg ko ci loxoy sunuy doom ak sunuy sët saxunu fi dañ fay jaar rekk di dem kon loolu nan jéemu rafet ñaareel ba moo di luwaay yi nga xam ne doomu aadama yi ñoo ko tëral seen bopp di dox ba mu yàgg ñu yëg ne ah nangam kat aajana defaraat nangam kat aajana dindi ma ne loolu ci boppam rek lu positif la lu tax moo di am na ki ko def am na yëg-yëgub ne lii yëfi mbindeef la te yëfi mbindeef lu mën a sax faw ay njuum te da cay nekk faw léeg-léeg jamono dem ba weesu lii su boobaa ajana wëlbatiwaat lii ajawaat na defaraat lii kon mëneesu te néggandiku ne lu doom aadama tëralal boppam day doon lu mat sëkk loo xam ne diisatu ca wàññi virgule loolu moo tax kenn wërta jort ne kenn wërta jort léeg-léeg nga dégg ay wax yoo xam ne dañ koy wax te waxi waxi naxe la wala waxi politique ndax mbir yi lépp lu ci dem ba politique dugg ci ak nii ñuy politique nun de mooy diw sàngam fu mu féete rek fa laa féete loolu moo tax bu la kenn mën a nax ci ne mënees naa teg luwaa boo xam ne dañuy wax ne diisatu ko soppi ba mukk déedéet amut doomu aadama munta teg loo xam ne day wax ne lii daf fi sax ba faw la waral loola moo di xeet wi muy askan wi seeni càkkutéef day soppiku jamono yu nekk te it ñi xam ne maas yiy ñëw suñuy dikk dañuy indaalewaat seenub xam-xam ak seeni ijtihaadaat muy seenug farlu ci gëstu ak ballalu indaalewaat seeni aajo kon kenn mën leen a tënk ci loo xam ne dafa doonoon aajo yi wenn xeet ñi dem ba jëmmi jamono weneen xeet ñëw ñu ne ko loolu mënatoo koo soppi kon loolu moom nañ ko bàyyi xel buñ yaakaar ne it nag da ngay dégg lu bare bari ci waxin yi ñiy wax ne laïcité bi moom moo fi indi jàmm ji moo tax ñi bokkul ay diine ñi bokkul ay tariixa ñi bokkul ay waaso ñi bokkul nangam ñi mën a dund weddiwu ma ne loola mi ngi ci laïcité waaye ñu xam ne nag indiwu ko fi xëy na fañ ko doon sose moom xëy na foofa moo ko fa indi waaye fii nga xam ne réewi jullit yi la ñu xam lislaam ñoom xam nañ ne lislaam loolu fi la ko fekkoon démb ak bëkk démb bi lislaam taxawee nekk état bu dëgër ci kaw suuf muy dund yonente ba ak i saabaam ak la ñëw gannaawam ba ci lu ëpp juróom benn téeméeri at lislaam a ngi doon gouverner ay nit nekk ci seen biir ñoo xam ne ñi ahlul kitaab lañ nekkuñu ci diine lislaam am ci seen biir ñoo xam ne lii lañ gëm am ñoo xam ne lee lañ gëm kenn ku nekk lislaam bàyyi la ca la nga nekk ànd ca yow ak jàmm bu ngeen ñëwee di attewu yow yaakub jullit ngeen ñëw tey ci tribunal bi nga dib jullit kële nekk chrétien wala mu nekk leneen lislaam xàmmewul sa diine ak diineem li muy xool mooy ku tooñ ak kañ tooñ day atte atte bu sew bu maandu bu jub boo xam ne kenn du tooñ kenn ci gàttal kenn du tooñ kenn te ku nekk dana jot sa àq lislaam liñ yor ci ay tëraliin yoo xam ne yu mel noonu la ak i xew-xew yoo xam ne xew na ci biir tribunaux islamique yi nga xam ne histoire bind na ko su nit toogoon di ko dajale fii waxuma la ab xutba waaye ab téere mënees na ko ci génne boo xam ne day woon maadu teg lislaam gi nga xam ne jox na ñi dul jullit seen àq ci biir keppaarug lislaam kon lislaam warta tiitloo kenn ba ñuy jàpp ne day doon loo xam ne bu ñëwee rek jullit yi dañ naan noonu ay jullit lan ku dul jullit na génn réew mi wala nañ ko rey wala nañ def nangam déedéet lislaam melut noonu fu ngeen dégg ab xeex wala mbiccoog mbàlloo ci diggante ay diine xamal ne ñooñu seen diggante la waaye du diggante lislaam ak beneen diine lislaam waxut loolu lii nu jublu nag ne joxe nañ ko ñëpp yëg nañ ne faaw danañ ko wateel kon la ca des mooy wateel ko nag rek kenn ku nekk tànn la la doy nga defal ko sa bopp waaye tomb yi nga xam ne moom laa bëgg a daaneele xutba bi moo di ay ay ñaan la yoo xam ne dañ koy ñaan ñi ñëw ëllëg wala ñi nga xam ne ñoo fi nekk sax suñ demee bay xalaatati teg ay loi am na yoo xam ne askan wi soxla nañ ko te bëgg nañ koo gis ci ay loi yoo xam ne dañ koy appliquer kon jàpp nañ ne loi yoo xam ne day wax ci lii nu gis ci suñ jamono ci tuurug deret gudul jeex te li nekk ci seen bopp doon ay boroomi xarga fuufa yoo xam ne dañuy defloo nit ñi ay sacrifice ñiy rey ay doomu aadama ci boppam fan yii rek matagul une semaine benn rapport génn na boo xam ne nee nañ lii dee ci ay bakkan ci Sénégal gii at mu nekk ci ñoo xam ne sacrifice moo leen di rey ëpp na junni ëpp na junni waaw su fekkee jabar yu mel noonu ñoo nekk ci réew mi di def loola dem ba ña faatu ba nekk ci seeni bàmmeel muccatuñ sax ci ñoom ñi di leen sulli di dagg seeni cër di yóbbu kon ñu mel noonu jaadu na ñu am loi boo xam ne njabar ci boppam daf koy daf koy criminaliser daf koy criminaliser ku ko def nangam ju leer moo war a tege ci sa bopp ñu jëlee ko fi loolu saafara la doo xam ne askan wi soxla nañ ko tey rey bakkan yi ak ni mu woyefe tey yéen a ngi dégg rek ci xabaar yi démb ay nit ñoo xam ne dañ leen a jàpp ay xale yu jigéen rey leen dem def leen lu bon sànni leen ci biirum ndox nga xam ne ñi ngi wër fi mu nekk gisaguñ ñi ko def suñ leen gisoon lu ngeen séentu ne moo cay am danañ leen tëj ab diir bàyyi leen ñu génnaat kon ma ne lii nuy gis jabar yii di ko def boole ko yemuñu ci waaye di ko publicité ci rajo yeeg télévision yi guddi ak bëccëg ñu di ko gis ak di ko dégg jaadu na loi boo xam ne dafay tere loolu di ko teg ay sanction yu diis waaye média yi nga xam ne ñooy tasaare loolu di ko yëgle itam ku ko publicité ñu am loi boo xam ne nangam la ñuy teg ci sa kaw jaadu na itam bakkan yi ñuy tuur ci ay caaxaan ñu delloosiwaat ku rey bakkanub doomu aadama te tey ko ñu rey sa bakkan loolu dong mooy saafara si amul leneen an nafsu bi nafs bakkanu doomu aadama amul bu ndaw amul bu mag amul bu jigéen amul bu góor ki juum xam nañ ni ki dafa juum waaye ki tey tey lu jóg tey ko dikk rey bakkanub jàmbur ñu ne lum ci jublu ñu ne day def sacrifice parce que dafa bëgg a am alal rey bakkanub jàmbur ñu ne lan la ñu ne da ko saay saay ba noppi sànni ko ci ndox mi kooku yeyootul di waaxu ci kaw suuf di dem ak ñëw bokki ñooñu di ko gis kon loi yu mel noonu soxla nañ ko ci bépp proposition buy dikkati wala projet de loi boo buy ñëwati yu mel noonu di ko ci gis soxla nañ it luwaa yoo xam ne lii nuy gis ci jikko yu yàqu yi duma fi jekki di ko détaillé ndax ci minbar laa nekk waaye jikko yu yàqu yi nga xam ne kenn ku nekk ngi ci teg sa bët di ko gis di ko dégg soxla nañ luwaa bu koy tere ci lu leer nañ soxla nañ luwaa buy aar pas-pasi jullit yi ak pas-pasi diine sax yonent yi téere yi boroom xam-xami lislaam kenn waru leen a foyee di leen foyee ci ay caricature wala nga di leen foyee ci média ci ay wax wala nga di leen dugal ci ay caaxaan loolu war nañoo am lu koy tere kon askanu jullit lan maanaam nun fii ñi fi nekk ay jullit lañ seen xaq la ñu am ay loi yoo xam ne dafay tere lépp loo xam ne day jalgati jikko yu rafet lépp loo xam ne day jalgati diine waaye luwaa yoo xam ne day soññee ci jikko yu baax di soññee ci ittewoo tabax doomu aadama ba mu doon koo xam ne dafay mat ci jikkoom mat ci ab jëflenteem mat ci doon koo xam ne lum tabax bu ëllëgee du ko toj lu ko moy kat mën ngaa tabax lu bare bare bari sàggane doomu aadama mu wëlbatiwu tabaxaat tojaat la nga tabaxoon yu mel nii nag liñ ci seetlu rek mooy askan wi danañ di soxla ñu di leen leeralal luwaay yi lan lay wax dëgg-dëgg ndax ñàkk gee leeral dafay jur ak lëndëm day tax politique man cee jaxasoo man jàpp naa ne lii ñu tudde référendum mu istifta dafa war a doon loo xam ne politique dañ ko war a teg fële ndax dafa doon loo xam ne dañoo jàpp ne lii lu war a baax ci askan la kon ay nit ñu neutre ñoo war a toog cib jataay jël ko benn par benn di ko wax ca làkk ya nit di nit ña dégg ne leen lii kat nangam ak nangam ak nangam lañ ci bëgg a dolli te su ci dolli ko lii ak lii ak lii mooy doon njariñ ya ñaareel bi mooy bii suñ ko ci dollee li muy jariñ mooy nangam ak nangam ji nga xam ne nekku fi woon dana fi nekk nangam ak nangam ji nga xam ne manqué woon danañ ko mottali soo ko toppee noonu ba mu jeex nit mënta jóg ne la loi bi dañ koo indi ngir indi loo xam ne lu baaxut la waaye su fekkee ne leerul ci nit ñi li ciy jëkka lor mooy loolu mooy nit ñi xamuñu lu mu doon kon nit mën na leen exploiter ne leen lu baaxut ca ci nekk te kenn du ko mën a weddi ndax moom xamut lu ca nekk ñaareel ba mooy kay wate day dem ba wateetut ngir ay loi waaye politique lay wateel maanaam nit lay wateel xool ba xam diw sàngam daal fële la féete kon mooy sama mbër kii ne kee fee la féete mooy sama mbër loolu day tiitloo nit ndax bu fekkee ne dañu politiser loi keneen mën naa ñëw ëllëg teg loi yoo xam ne baaxul ci askan wi lëndamal ko ci kaw nit ñi su ko defee ñii ne kii laa àndal ñee ne kii laa àndal su ko defee bu boobaa mu soppi ko politique ñu andi fi loi yoo xam ne dafay lor askan wi اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اختم بصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob